Adji na ci tribunal bi te tontu euh, yi nga xam ne euh, juge bi laaj na ko ci élément waaw loolu mën naa jël tontu ndax xam ngeen ni li ñuy wax instruction dañu aaye ku ci wax l'instruction est secrète képp koo xam ne génn nga tey la nekk fële ci bi prison la a faral yëkkati ni bato yi aaye nañu suñu bato yi dañuy def seen des avocats parce que ñoo ko fal aaye nañu ñu waxtu bi seen kon bu leen seen bi te man tey ma wax leen dara loo xam ne xew na tey kanamu si ndax ama ci sañ-sañ waruma génn sa kër yi pour sama bato yi sama kilifa cameraman yi mën a nee na bu leen wax ci mën a mën a mën a taxaw loolu sax loolu la bu baax a baax sama client maître ngi taxaw sol masque teew na sañse teew na ba mu waree teew ah, tardewul benn taxaw di di xaar teew na xelam dal na am na moral journaliste tubaab bi moom waaye la fa xew moom doo ko xam mukk En français d'abord, pour analyser le tribunal euh, pour cette audition de Adji Sarr. Qu'est-ce qu'on peut retenir? léegi euh, lan moo waral loolu tamit est-ce que. waaw loolu loolu du lu bees. yéen ñëpp yëg ngeen ko ndax avocat yi euh, demandé woon nañ état bi l'instruction est secrète li nga xam ne moo war a yore kiiraayu sénégalais yëpp. donc vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé dans le bureau du juge mën a aar. et puis les bataillons des avocats nous a interdit de parler du dossier. di ko dig ay rey te bon ba sécurité am nekk en danger état nag bu xamee ne nit sécurité mu ngi nekk en danger def ci jóg taxaw loolu ñëpp la war képp koo xam ni yaakaar na ne ñu la bëgg a fagaagal am nga droit état euh, mu ñëw. aar je ne vous dirai rien par rapport au dossier. est-ce que est-ce qu'elle a répondu aux questions. loolu sama ne yàgg dañ koo wax nag bu ñu ko ko ne mu ngi l'instruction est secrète. loolu xëy na ça a beaucoup duré cette audition. voilà le moral est bon là je peux répondre. nag yaa à le moral. waaw pourquoi nëbb nëbbal biñ ciy def. elle est sur maanaam le fait que nit ñi mënuñu ko. ñii àtte fii chaque jour di porte plainte ci juge xam ngeen leen non dafa leen nàkk rek dafa yor affaire yi naa feqee xam nga ko dégg ndax ñii porte plainte tous les jours procureur ci biir juge bi da ngeen leen gis yéen dañuy wax presse bi ni maa ngi nii nit day xool yàlla ak ba melam ah bàyyi leen di wax lu leen ne ñu naan Adji Sarr yéen ñii porte fi plainte tous les jours bi ngeen àtte tribunal plainte yi eh, déglu ma mais vérité wu ma mais est-ce que may may may may may may parce que mën naa ndax ñu naqari ñu nax nit ñi est-ce que ñuy porte plainte fii ndax leen ni ndax viol ndax viol ci dëkk bi jox ko procureur ba jàpp leen tëj leen man mii Massa Ndiaye donc amené ramener de justice est-ce que yéen presse ba ngeen gis ko porte plainte pour viol ñoo tax ne maa ngi nii lu tax bii moom rek moom moo di ñëw ne maa ngi nii ndax pour nga ray ko gaaw wala ñu jënd ko yooyu du ci dugg dama ni ah bien sûr warul dem naan maa ngi nii lu ngeen koy doyee sa problème lu ngeen soxla est-ce que moom rek moom ma sa porte plainte pour viol est-ce que kii porte plainte pour viol day ñëw ni presque maa ngi nii ma kenn bàyyi leen wax leen ne dama ni ndax ñuy porté plainte pour viol ndax dañuy yoon dara ci presse tuuti si ñu ngi ni pour ñu ne kii daa moom gisuñu ko lu tax ñu ko gis li koy wëree ndax ñeneen ñu wëree yéen porté plainte ñeneen ñi porté plainte pour viol ñu leen wër wala benn cas de viol mos am Sénégal est-ce que c'est l'État qui a mis à sa disposition des forces de l'ordre parce que cela a fait une eh, suspicion ces derniers jours léegi maa ngi di gërëm benn sappition man ñi am seen ñi am seen problème à la disposition de Adji Sarr dama ne man ñëwuma fi pour xoolal des éléments yéen dama leen jox cër moo tax sécurité man dañu ma aaye des avocats Adji Sarr Issa Tey Poté à la connaissance dañu ma aaye ma wax ak journaliste dañu ma aaye ma wax ak journaliste dañu ma aaye ma génnee lu nekk instruction par courtoisie bi mënu ma naan man fi dem moo tax ma ñëw di wax ak yéen te dugul dugul ci dossier ñi bëgg a gis Adji Sarr nag dañoo am soxla ci moom nañ ñëpp seeti ñoo xam bu dee dañ koo bëgg a takk bu dee dañ koo bëgg a may ay milliards bu dee dañ koo bëgg a dóor ñoo xam mais li ma wóor mooy bi ñu koy dee ñoom n'est-ce pas que yoon moo ko soxla yoon la war a wuj du wuj si rek wala yoon la war a wuj wala bànn yi ba ma gis la war a wuj jërëjëf aucune réponse à cette question